kay rek sagam wax ne xaw na ma te damaa gis ne da bokk ci làmb ndax barki dem damay dégg ci sa message nga ne ma maam góor gi du lii du tuus bàkk la. kon ñàkkoon na yoom mii tey jii xanaa lu nu sën baay maam góor nangu loon tey jii doon ko mën a bañal nga bàkk ñu tuuti ñu ñu dolli rek xale yi nit ci yoon wi di ñëw di xam ne dañ ciy bàyyi xel xam ne lii loolu dafa bokk ci làmb waaw yow de man moom loo ma wax rek dama koy dama la koy may si si barke maam góor gi <laughs> barke maam góor gi laa la koy may waaw parce que koy sunu kilifa kooku référence la woon lépp la woon ndeysaan mm, mm. Euh, ba tax na daal euh, li may wax bu njëkk léegi da ngay gis sax euh, xale làmb ñu dóor xale mu daw wone ginnaaw am na ci ay combat xeex xeex bu metti nga daw génn wane ay combat mm-hmm. nga wane ginnaaw daw te loolu du ngor da ngay taxaw jaayante mm-hmm. waaw jaayante waaw yooyu xew yoo xam ne xew na na xale yu bàyyi yooyu làmb ngor la ak garmi mhm. moo tax waa ji ne bu bal tàkkee pënd ba wuri mhm. déggoo ma de su bal tàkkee pënd ba wuri xel dem ci daw man de duma daw su bal tàkkee pënd ba wuri xel dem ci daw man de duma daw waaw <laughs> <laughs> ma làmbaay ya nga làmbaay biram ndumbaa nga ca mbul maa jajo déggen ba ca gondal lu rëy la maa jara woy maa jara tëgal dama ne ndax maa di waagu ñaay li ma yàpp ci béy reere ko ci njanja naan ko cim réew te du ko ci lal bu nooy su ma daanee mu tas eñaan du ko faj yàlla def na ko sama doole mooy mooy sa xarit su ma jaaxee ba làmb ko dama xel dal waxuma dëggam déet bàyyi tubaab ku mu seen si góob def na ñetti bomb boo fa jógee dinga nga jàngi door xam ne ah <laughs> mu limal leen ak raw nga maa limal de.